je dis que le président de la République Macky Sall n'a pas choisi Amadou Ba. Le président a choisi une posture. Le président a choisi un Le président a choisi un parcours qui coïncide avec un homme. Posture mooy taxawaay. Discours bi mooy kaddu bi. Parcours bi mooy jaar loolu la président Macky Sall doon wër ku topp ci ginnaawam ku ko mën a wuutu porter ko li nga xam ne ni moom la doxal Sénégal à travers le plan Sénégal émergent bu mu ko jëlee 2012 ba 2023 2024 mu fas yéene ko jébbal ñetti mbir yooyu la doon wër ana ku ni mel ana ku ko xam man koo wax ana ku am jaar-jaar bi pour mën ko àggale ba mu ne le 3 juillet 2023 dootuma dem élection li ñu doon wax troisième candidature bi ma nar a posé teg naa ko fële ndax Sénégal am na ay nit yoo xam ne nii am nañ compétence am nañ parcours am nañ discours pour mën a porter le Sénégal de 2024 à de 2029 jusqu'à la fin loolu la wax ba mu koy wax wagul nit ay melokaan ay mandarga la joxe daal ne nag ci sama biir njaboot dinañ ci wër koo xam ne nii ci biir njaboot gi la dinañ ko jox lenge yi mu dem à la conquête du suffrage sénégalais pour mën maa remplacer en 2024 alors ku nekk naan ku nekk naan bu dul man mais am na koo xam ne ni kenn déggu ko ba léegi mu ne man est-ce que depuis dégg ngeen ki nga xam ne ni moom lañu ñu désigné daal di taxaw ni sénégalais yi naan ne man la daal ne bu dul man du baax kon liñ doon wër ci posture taxawaay liñ doon wër ci discours ci wax ci kàddu ak nekkin am na loo xam ne nii mi ngi commencé di feeñ ndànk-ndànk ñu mettre en place un comité ñu mettre en place un comité chargé auditionné ceux qui sont prétendus être des de Benno Bokk Yaakaar comité boobu ki ko jiite bokkul ci njaboot politique président Macky Sall nga kan la kan ko jiite Moustapha Niass on revient à l'expérience et au parcours de Moustapha Niass qui a été sous Senghor accompagné Abdou Diouf avec Abdoulaye Wade élu ko dans le cadre du Front l'alternance accompagné ko dans ses premières années premier ministre rejoindre l'opposition ñëwaat ànd ak président Macky Sall ñëw moom dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar 2012 euh, ba tey muy diriger assemblée nationale am une forte expérience politique une indépendance financière et une vision de développement. ñu ne ko kii yow yaay jiite comité bi seetal li nga àndal déglul ma candidat yëpp seetal ma kan moo ci mën a porter le lourd du président Macky ñu auditionné. déglu cet discours cet mais le président avait dit quelque chose de très important moom moo gën a sànq ci turu thème bi il avait dit que le choix que nous allons porter ne sera pas un choix de cœur mais un choix de raison nous allons vous donner les raisons de ce choix de raison qui ne manque pas de cœur mu tànn daf ne du ñu ko diis ci xol ci bëgg ak ci lu ñu neex kese dañ koy wéer ci xel xam ak mën waaye ba ñu seetee ba tànn naam am na xel xam ak mën waaye am na tuuti bëggeel quand on a en place le comité candidat yi dessiné le 9 septembre les critères que nous avons dit tout à l'heure puisque président li mu doon wër du on aurait partir d'un homme pour définir des critères qui sont liés à cet homme mais on a choisi des critères ñu teg ko tous les critères vont mener vers cette vers un homme comité s'est réuni le président Moustapha Niass l'a lu le 9 septembre c'est ça ah c'était le 9 septembre devant le public tout le monde était là. Titi, euh, DJ, malheureusement, Max n'est pas là. Il aurait pu me préparer tout ça quand il disait que le choix a été porté sur un homme pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar et la grande coalition présidentielle aux élections présidentielles du 25 février 2023 a été portée sur le premier ministre Amadou Donc le président n'a pas choisi Amadouba. Il a choisi des critères qui ont mené vers un homme qui s'appelle Amadouba, qui est premier ministre. Donc l'homme est Donc nous avons rupture, Inch'Allah.